mbokk yi leen nag jàmm ci limametti point com soo leen gisee nag fi ñu nekk mooy dañoo changé eh, cadre ñoo fi nga xam ni moom mooy stade bu mbaawo ñëw fekkee si li nga xam ni moom mooy détection de talent maanaam xale yi nga xam ni eh, ñoom ñooy football dañ ciy xool ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a xarañ ñu daal di leen di jël loolu nag ñi ko organisé ñoom ñooy waa Sélé bu yoon FC ñëw fii ba nga xam ne moom stade bu mbaaw daal di fi amale li nga xam ne moom mooy seen détection de talent da ngeen ñuy topp ci biir lima metti point com ñu wan leen euh, journée boobu nan lay nan lay demee ak li nga xam ni moom match ak li nga xam ni moom ay euh, interview ak lépp loo xam ne war na ci rek ngir ngeen mën a xam euh, détection de talent boobu nan lay demee. waaw ndaje bi mooy rek en fait euh, pour euh, euh, démarrer officiellement activité Sélé parce que dans lañ ko programmé woon waaye xam avec coronavirus mun ñu woon def suñu activité dans dafa xawoon métti te tey nag dañ pour def nag léegi ay journée de détection pour jël suñuy pensionnaires pour démarrer officiellement suñu activité au niveau de de Sélé catégorie euh, ñun dañuy def initia dañuy def initiation préformation à formation hein, parce que dafa mel quand même dañuy insister surtout sur euh, initiation bi éveil après lañ koy def donc euh, am nañ fi trois catégories donc xalé yi ñoo nekk pour l'instant sur le terrain ñu ngi football et puis après maintenant ñeneen ñi dinañ si tegu. waaw xam nga en fait ñun dañu nekk pour sport ñun dañuy liggéey pour sport bi li ñu bëgg rek mooy en fait am xalé yoo xamante ne da leen di yore di leen tàggat ci football hein et puis également offrir leen benn carte convivial boo xamante euh, dinañ si mën a euh, gis seen bopp dal ah donc xam nga ku gis lu lu lu tal nii seen dafay daw ah xale yi yëpp ñëw plus de plus de 300 gosses ñoo fi nekk ah donc ñoom li ñu bëgg mooy football ñu tam ñu ànd ak ñoom euh, pour defal leen ko dal waaw tey football yi mu nekk waa fédération mu nekk mu nekk ministère du sport ñu jàppale ñu parce que ñun école de football yi en fait n'est-ce pas au Sénégal am nañ 1100 écoles de football xam ni ñu koy waxee si wolof école football bu nekk amno au moins 50 xale xale buñu école de football yi daanaka ñuy fay duñu bari alors il faut dafa bari ay charge da ngay fay entraîneur da ngay fay ñu lay fóotal maillot yi da ngay fay médecin ba euh da ngay da ngay da ngay da ngay voilà ñun dañuy yar xale yi ah di len tàggat également si euh, sport bi donc amuñu benn benn benn benn moyen te fo dem diko ko ñu jàppale ay caaxaan alors que yii du ay caaxaan gis nga ne après tay ji tay ak mbolo bi nekk fi tay suñu ginnaaw mais tu vois focal macha allah ñun ñu ngi canaliser xale yi ñun dañ jang mooy nañ ne jàng nañ ba amal suñu diplôme dañuy dem euh, Europe n'est-ce pas pour euh, monnayer nos talents mais non dañ né dañuy tok Sénégal liggéey suñu dëkk donc également ñom nañ ñu gëstu et c'est très important aussi voilà. waaw wax fa dëgg neex yalla man damay remercier en fait euh, sama partenaire sama collaborateur yi ah, wax fa dëgg neex yàlla dañ ci taxaw baax a baax a baax baax damay remercier le directeur technique régional Abdou Gueye Louké le directeur technique départemental Thialan ak tamit ses collaborateurs hein. man également, également sama équipe ak tamit samay samay samay samay sponsor hein. La Rochette hein, euh, Michel Salab Sodagem Nader aussi euh, Siepa euh, Naïf avec Océan Marine aussi hein, Samy Touma Barbar, leen bu bar si jàpp buñ si également la CONEF hein, la coordination nationale des écoles de football du Sénégal man donc également di leen Dylan di vraiment taho bouli taho, Akimit Wote, Wote, new nga woote ñu également Sunu waajur ak suñu famille vraiment taxaw nañ ci japp centre de formation académie woowoon ma pour ma jàppale ko ci nan la ñuy def ba gëstu xale yi nga xamante ni am nañu yaakaar ci am nañu war nañoo mën a am ci ñoom yaakaar pour pouvoir leen utiliser kii leen ci centre de formation bi muy euh, Faysal Ngom di koo xamante ni kii sportif la yëngatu lool ci football bi bëggoon a créer benn académie ci la ma woo ni actuellement regroupé ay xale yu jógee ci différentes sélections pour ñu xol ñi nga xamante ñi ak ñom ëllëg mën nañ ñoo am yaakaar ci ñom ni dinañ mëna indi dara ci football mm, sélection sélection bi nak dafa dafa bari ay catégorie parce que dafa joggé ci xalé yu ndaw yi ci école football ba mm. ci catégorie senior parce que mom comme nim ko waxé euh, euh, académie bi war am école football warna am les différentes catégories préformation formation formation mm. mais aussi tamit mu bëgg am benn équipe bu senior bo xamanteni bi dina ko permettre au moins de temps en temps muy animer à travers des matchs d'entraînement avec d'autres équipes senior Mmh, mmh. Mmh, donc catégorie 8, yépp ñoo fi en pratique d'accord de de de de de 600 je dirais même 6 parce que les, premières séquences que nous venons de faire c'est avec des gosses qui tournent autour de 6 8 jusqu'à 12 ans 11 ans donc nous, ñoo ñëk def ni ñu animer les rek à travers des plateaux là il ne s'agit pas de faire sax ay détection mais dañ leen di animer pour permettre au moins ñu yëngatu tout gazon bi won mm-hmm. leen ni quand même ñoom ñoo war a constituer base mm-hmm. académie bi maanaam école de football bi. Mm-hmm. football ku xam léegi football xam ni football moom ay moyens la laaj donc dañ leen di laaj rek dañ leen di ñaaxaat rek pour que ñu gën a a jàppale waat école de football yi pour mën a football bi ci localité bu nekk te loolu aussi tamit da di loo xamante dañ ko dénk maire yi ñu war cee jàppale tuuti tuuti lu mu bon bon xale yi